Makhtar Diop bul fekkee ne nag da nga bëgg Macky Sall nekk dictateur danga ñu koy wax maanaam Macky Sall fexe rek ne moom daal buur la du fi jóge waaye coono bi askan bi du dund yéen xamu leen ko yéen da ngeen fi bëgg toog rek ñu leen di sotti ay milliards Macky Sall di leen di sotti ay milliards ah waaye bu ma leen waxee ne dëkk bi dafa met dafa met da ngay romb ay maire di la di la ñaan cent franc billahi wallahi taala maire dañ lay koj ci ay angle amna na benn maire boo xam Nabil Choucair lay taxaw lay lay toog ndeysaan bëgguma ko weeje mais da ngay romb sama doom doom ma may cent franc mais loolu moo fa moo am Sénégal bu ma toogee dégg directeur LONASE ah, muy Lansana Sakho nee naa yaay day day tontu Ousmane Sonko day weddi Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko dafa ne 48 milliards rek ngeen ci def Sonko mën naa ko defal lu ëpp 1000 vidéo gis nga ba ma commencé si Sonko ba léegi lu bon bon waragum naa fi defagum ay ay 20 vidéo waaw ah, ci 2020 Sonko mën naa ko defal 1000 vidéo jàppale ko jël sama xaalis xam nga ñële 3 millions laa leen jox man génn ci Macky Sall ba set wicc man yàgg naa leen avertir man ba may ànd ak Macky Sall nekk Sénégal gars yi dinaa leen génne ay video il faut ma dugal leen link yi man damay yàgg analyser man yàgg naa leen wax Macky Sall fi mu jëm ak yéen xamu leen ko Macky Sall fi mu jëm ak yéen xamu leen ko parce que dëkk bu nekk président bi nga mérité rek nga am 2019 ba léegi man loolu laa ay Macky dafa ñëw ay tànk pour sànq Sénégal Sonko na n'a plus les moyens de sa politique Macky Sall yoratul khalis dafa lepp dafa lepp lepp Il Wade li mu lepp Macky Sall lepp na Sénégal mi ngi ci qui ñetti junni milliards ci ci bor. gars yi bo leen xamone bor li muy dekk billahi le leen xamone bor lu dekk billahi di ngeen Macky Sall da leen Sonko wax gars yi leen di wax leen partager euh, de leen like. parce que tamit ñun nii lañu mën a def di leen indil xibaar yi waaw dee leen ñu partagé dee leen partagé dee leen like Rihanna move over taxaw triste bo lo xolé sama kanam sax xamne dama mel ko am nakar ndax man lima gis Sénégal ci ay mag yo xamne dañuy tok ci télé bi di nax sénégalais yi di jox ay xibaar yo xamne li ñuy wax méngoowul ak deug waaw parce que tamit ay kilifa lañu te il faut que ñu jox leen tuuti cër moo tax du wax duñu sax wax yenn wax yi waye buñu démé ba dégg. Abdoulaye Matar Diop moom laa seetaan muy wax naan um, um, dañu war a defar beneen référendum woote ngir laaj ndax Macky dafa war am troisième mandat wala amul troisième mandat gars yi man tey damaa tëdd gént mel dama am yëg-yëg billaahi wallaahi wa taalaahi yëg dama ne woon su ma yeewoo damay def benn vidéo boo xam ne dinaa wax senegal yi Macky Sall dina fexe ba defaat fi beneen référendum maanaam dina woote waat waaye waxuma woon pour man mandat man dama yaakaaroon ne Macky Sall dina woote waat référendum pour yokkaat euh, nguuram ngir corona wala ngir lu mu mënti doon ndax élection yi ñuy dàq ak yooyu yóbbu ko moom mu war a jóge fii deux mille vingt quatre mais mu toogaat fi yeneen ñaari deux mille vingt laa gént loolu laa yëg tey ba may nelaw billaahi wallaahi wa taalaahi ne Macky Sall dina defaat beneen référendum kon nak buma yewo gis Abdoulaye Makhtar job mom waxul sax mom dafa ne dañuy wara defat benen referendum référendum dama dama am xol nakar la am parce que buma ma mom muy wax nan léegi la ko don deglu Dakar Actu ñukay laaj te ki koy laaj xamul xamul ngeen baal ma parce que site yu bari duñu ay journaliste ay reporter lañ dañ leen di jël rek tek leen fofu motax ñoñu luñu leen wax rek ñu gëm ko parce que Abdoulaye Makhtar job nee amerique ñaari mandat amu fi Amérique président bu ko neexee def ñetti mandat mi ngi wax loolu reporter bi sant ba gëm ko mais man mii nekk Amérique nekk citoyen américain wax naa ne la loolu amu fi Amérique ñaari mandaa moo fi am amul benn président bu mën a def ñetti mandat Franklin Roosevelt moo fi defoon mandat te temps yooyu guerre mondiale lañ nekkoon adduna bi moo doon guerre guerre mondiale ñu changé ñu constitution bi Sénégal guerre mondiale amu fi xam nga mais lolu après dafa deñ 1947 le assemblée bi voté wat benen loi li ñuy wax 22e amendement mu amul ben président bu mën am lu ëpp ñaari mandat kon Abdoulaye Makhtar Diop bu togué di wax lolu Sénégal yépp diko dégg mu France amul deux euh, deux mandats Amérique amul deux mandats lolu ngén balma ma méngoowul ak dëgg bëgg Macky Sall def 3e mandat warul tax nga nek fi di wax nit ñi lo xamné amul. France Nicolas Sarkozy 2008 fait na changer constitution Le président ñaari mandat rek la Je def ba un exemple Russie Russie a amul troisième mandat mais Russie une démocratie Russie dictature moo fa am Poutine est fa di nit ñi gis ngeen opposant bi la kon Abdoulaye Matar Diop bu fekkee ne da nga dictateur fexe rek ne moom daal buur la du fi jóge nekk seen kër yi nekk seen milliards moom boo xoolee këram gu yànj gi Abdoulaye mataat Diop dama leen di woon photo yi leen di woon yi ngeen xool ne kii dafa mësa a féex grand sëriñ de Dakar fi Abdou Diouf nekkee ba léegi macha allah macha allah xëy na wërsëgam la waaye coono bi askan bi di dund yéen xamu leen ko yéen da ngeen fi bëgg toog rek ñu leen di sotti ay milliards Macky Sall di leen di sotti ay milliards xam nga bu neexee nga ànd ak Macky Sall kenn waxu la bul ànd ak Macky man Macky Sall àndaloon Macky Sall laa ànduloon xam nga mais ba ma demee ba ci biir gis ne Macky Sall liggéeyatul xam nga dama cee génn ba set wicc mais du ma xool rek sama intérêt contraire ñun Sénégal moo ñu tax ñun dañoo jël suñu xaalis yéen ay milliardaire ngeen du ñu ay milliardaire mais ñun ni ñu yéene Sénégal yéen yéenewu leen ko Sénégal ndax man lu bon bon sama 3 millions def naa ko ci di campagneel Macky Sall ndax yaakaaroon ne dina égalitaire yaakaaroon ne dina eggali Diamniadio yaakaaroon ne dina eggali BRT yaakaar na ne euh, roon ne li mu waxoon dina am 500000 manaam maanaam juróomi téeméeri junni xale dinañu liggéey xam nga yaakaar ne sàcc bi ñu doon sàcc littoral bi yooyu dootu fi am yaakaar ne ay ay ningileer duñ ko dégg yaakaar ne duñu dégg tóobeen yaakaar ne duñu dégg gàddaay loolu ñu loolu taxoon ñu ànd ak Macky Sall waaye bi ñu demee ba ci biir gis ndox mi mënd mi ah sonnal nit ñi ah, ñu gis ay ministre Amadou Hott xaw ma dem ñu tey dama yeewu euh, euh, Seneweb ñu def ko à une ndeysaan ñoom noonu la ñuy def dañuy jël seen xaalis fay fay fay site yi site dugale leen teg def leen à une maanaam ñoom ngay njëkk gis Amadou Hott ñu ne yóbbu na ay camion yëmbal sud ah ndeysaan si ah, ci ci si ñetti waxtu rek defe naa la ñuy wax ma si ñetti fan ñetti fan ndox mi fa nekkoon yëpp camion yi camion yi nañ ko ba pare mu indi ay ndaraan ndaraan yi gas foo xam ne fa la ndox bi jaar mais ndox bi bu jaaree fan lay dem jàngoro boo koy faj da nga koy faj faj boo xam ne day yàgg mais faju taaba taaba indi ay ndaraan ñu gas po euh, manque ndox mi mais loolu dangeen ko waroon def bu yàgg dangeen war a defar ay ay canaux bu ma toogee dégg directeur LONASE euh, muy Lansana Sakho nee naa yaay day day tontu Ousmane Sonko day weddi Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko dafa ne 48 milliards rek ngeen ci def moom mu génn déedéet ne defuñu 48 milliards def nañ ci quatre-vingts milliards mais la mooy quatre yow nee nga yow yow Lansana nee nga euh, nee na Ousmane Sonko affaire bi du sax sept cent cinquante milliards sept cent soixante-cinq la Macky dafa ne woon ci wéeg fukki at dina jël euh, euh, juróom-ñaari téeméer milliards ak lu topp ah juróom fukk ak topp daal di ko daal di fexe ba ndox dootul taa fenn waaye sept cent cinquante soixante-cinq milliards lan lañ ci def ci ci ci ñett ci juróom-ñetti at gisuñu ko gisuñu ko ba pare nga ne deux cent quatre-vingts milliards lañu lañu la Macky Sall génnee ngir bu fekkee ne yow sa kër dafa taa ñu tabax ci ay kër yoo xam ne dinañ fa mën a dugal ay nit mais ana kër yooyu nit ñi tey bu ñu bu seen kër taawee mënuñu leen sax yóbbu ci ay école ñun nag looloo tax ñun ñu génn ci Macky Sall ba set wicc man yàgg naa leen avertir man ba may ànd ak Macky Sall nekk senegal gars yi dinaa leen génneel ay video il faut ma dugal leen link yi man damay yàgg analyser man yàgg naa leen wax Macky Sall fi mu jëm ak yéen xamu leen ko boobu APR laa de APR laa xam nga mais man dama yaakaaroon ne au moins sax dina liggéey dina liggéey ndax président boo fa boo nekk ci ci dëkk di liggéey di liggéey di liggéey ba askan bi kontaan xëy na boo waxee waxu troisième mandat xëy na xëy na nit ñi mën nañ ci d'accord man noonu laa doon xalaatee bu njëkk ba xam nga waaye léegi dafa leer na depuis deux mille dix-neuf ba léegi Macky Sall defu fi dara. man loolu tax ma weddi ko Macky Sall def tous tous bu leen fi wax affaire mbas ndax Macky ñu ko votel euh euh def naa février la woon février 2019 ba léegi le 24 février 2019 ba léegi Macky Sall mbas amu fi woon mbas bi janvier la ñëw yéen a may dégg Macky Sall deful dara dafa toog rek noppi xam nga kenn gisutu ko waxatul ak askan bi waxatul ak taskati xibaar yi ne jékki-jékki rek ne xaalis amatul Macky lol la def man senegal la nekkone man dama dem senegal tok fa ñetti at ak ak genn ay millions yu la yu balé ku dem ba mëna jël 3 millions diko diko jappalé Macky Sall ay millions yu la la yu balé 3 ans et demi ñetti at ak genn wàll ma tok senegal Sénégal goruma yak goru kon ça veut dire que ah? ma ngi wax sama xaliss ah waye buma len waxé né dëkk bi dafa met dafa met da ngay romb ay maire di la di la ñaan 100 francs billahi wallahi taala mairie dañ lay coj ci ay angle am na benn maire boo xam ne Nabil Choucair lay taxaw lay lay toog ndeysaan bëgguma ko weeje mais dangay romb sama doom doom bu may cent franc mais loolu moo fa moo am Sénégal nit ñu sonn mais sénégalais yi nag ñoom man Macky Sall du ma ko xas-xas yu bëri xam nga lu tax parce que dëkk bu nekk président bi nga mérité rek nga am ndax yow bu fekkee ne dangaa toog lekkuloo naanuloo sa kër di taa ah euh, euh, orange di la bëgg rey électricité di la bëgg rey lépp di la bëgg waaye bu Marème Faye Sall ñëwee yëkkati xaalis joxe rek ñëpp fàtte mais loolu Macky Sall bu nee ne wooteel leen ma ma changé constitution bi ak référendum ngeen ànd ci mais loolu Macky kenn waru ko ci xas opposition bi mu leen bi nax di leen woo ñëw leen ñu waxtaan dialogue national après ñu change ñu dàq élection yóbbu ko assemblée nationale nañ ko dàq mais opposition bi ci àndee Sonko rek bañ euh, Barthélemy Diaz rek bañ mais Sonko ak Barthélemy Diaz ñoom ñaar rek mënuñu mënuñu euh, wujjeeg Sénégal yëpp wax ji yëpp loolu la mais ñun ñun li ñuy def rek mooy ñu wax leen ne ñun Sénégal la ñu jiital man du question Sonko du question Macky Sall man dëgg laay xool Sonko bu juumee ci 94 milliards yi te dafa juum man loolu laa jàpp ne dafa juum damay génn ma ne Sonko dafa juum ci 94 milliards ndax man lépp lu may def gars yi dama koy gëstu gars yi bëgguma tagg sama bopp mais man am naa maîtrise en anglais et en civilisation américaine damaa jàng université laa jaar Sénégal moo jox bourse man premier mention bien laa am euh, euh, département anglais mention bien sama professeur euh, docteur Ousmane Sen. moo ma woo jox ma bourse waaw dafa ne ma ma defee maîtrise orale ba pare dafa ne ma boo paree nga seet si tellement que dama ko impressionné boo paree nga seet si ma ma seet si ko mu jox ma benn bourse ma ñëw Amérique Amérique moo ma def li ma def jàng naa lépp lu may dugg dama koy étudier Ousmane Sonko su ma leen waxee ne man dossier boobu xool naa ko liir naa ko xool naa vidéo yi xool naa yëpp mais Ousmane Sonko dafa juum foofu ci Mamour Diallo Mamour Diallo jëlul 94 milliards même Pape ko mais pourtant Mamour dañ ne ñaari milliards rek a jotagum génn ci 94 milliards yi Ousmane ne ko dëgg la waaye même boo jëlee fukki dërëm sax da ngaa juum kon Ousmane war waratul wax au moins bu mu wax 94 milliards na wax 2 milliards bokk te 2 milliards yi Tawri Sarr lañ ko jox waaye loolu est-ce que dina tax ñu bàyyi ñu bëri dañ ne ma wayo yow li nga fi yak sonko yëpp ba paré tay nga ñëw bëgg and ak mom mais bu ma wat man sama xex xexu ndiago lay xex Mamour Diallo defal na ko lu mat lu ëpp 200 vidéo APR defar na leen lu ëpp 500 vidéo sonko mën na ko defal lu ëpp 1000 vidéo gis nga ba ma commencé ci sonko ba léegi lu bon bon waragum na fi defagum ay ay 20 vidéo waaw ah, ci 2020 sonko mën na ko defal 1000 vidéo jappalé ko jël sama xaliss xam nga ñële 3 millions la leen jox man Sonko man man man fii laa ko waxee man dinaa jël sama xaalis di dimbali Sonko waaw parce que tant que maa ngi gis ne Sonko moom mooy solution ndax ndax kat Macky Sall moo fi nekk Barthélemy Dias Sonko Idrissa Seck ak ñi nga xam ne Macky da leen woo di leen nax di discuter ak ñoom ñoo ñoo fi nekk. il faut choisir entre Macky Sall ak Sonko wala Barthélemy Dias kan ngay choisir man man ànd naa ak Macky Sall quatre ans gisuma lu ma doy. mais léegi war naa mën a jox Ousmane Sonko chance am waaw comme yéen rek ni ngeen defoon dégg naa caat di ko wax démb Pape Alé Niang caat wax ko Pape Alé Niang ne ko ñun Macky Sall leen rek moo tax mu nekk fi ñun voté lu ñu Macky mais mais Abdoulaye Wade lañ fi bëggoon mu jóge fi man nag position boobu laa laa toll fu mu nekk nii dama ne Macky Sall man dama gis ne dafay sànq Sénégal. 2019 euh, ba léegi man loolu laa jàpp Macky Sall dafa ñëw ay tànk pour sànq Sénégal. koo xam ne dafa génneel way APR Benno Bokk Yaakaar tasuloo suñu yaakaar Benno Bokk Yaakaar yow lañ doon xaar kooku nag moo ñëw tey ne Benno Bokk Yaakaar tas nga suñu yaakaar Benno Bokk Yaakaar yaanaa maar maa ko wax maa ko wax ndax man ba ma gisee jam ñaajo gis yooyu yëpp dama amoon yaakaar mu ne bi ñu demee ba ci biir gis ne Macky Sall liggéeyatul waxu troisième mandat rek lay wax Macky fu mu toog mi ngi calculer nan lay def ba toogaat fi Macky day rëccu xam nga na fi toog

juróom-ñetti junni milliards ci ci bor gars yi boo leen xamoon bor li muy reyee dëkk billaahi boo leen xamoon bor li muy reyee dëkk billaahi di ngeen xam ne Macky Sall da leen sànq Sonko wax na ko bis bu nekk Sénégal mi ngi fay milliards ci lestek yi ñu ameel tubaab yi ma mooy li ñuy wax intérêt lestek milliards milliards la ñuy fay at bu nekk dinañu fay trois plus de trois cent milliards ñetti téeméeri milliards yoo xam ne ñu ngi koy fay ay bor te fay ñu bor de lesteg la ñuy fay maanaam tubaab bu la lebalee fukki dërëm danga naan la ñaar fukk nga may fay kon ñun fukki dërëm yu teg ci fukki dërëm yi ñuy leboon ñun moom la ñuy fay Macky Sall foofu la ñu foofu la ñu dugal Macky foofu la ñu dugal man nag xeexu njaago laay xeex APR dama ñëw pour liggéey ñëw ñëw pour jàppale leen def ci sama xaalis lekk lu leen dërëm jappalé sama xarit Mamour Diallo parce que dama gis né mi ngi liggéey mi ngi défar ay tali mi ngi tabax ay fala ay juma ñuy tabax mi ngi euh, indi ay courant euh, kokki ak yenen village yi di dimbali jigéen ni di lebal leen xaalis ñu né 94 milliards la sacc mais Sénégal loolu lañu wara bay nit kuy liggéey nangul leen d'abord na liggéey na ndax man dama leen wan tali won wan leen hôpitaux yi jigéen yi yi rang ndaysan ñu leen di xolal ndax am nañ cancer wala amuñu cancer ma wan leen Ah, robinet yu mu indi ci village ma wan leen jumaa yi mu tabax ma wan leen loolu yëpp mais xam nga lan lañ ma ci tegal dafa sàcc 94 milliards moo tax moo mën a liggéey mais moom mu ngi liggéey te sàccul man foofu laay waxee gars bi vidéo bi bugguma mu gudd gudd mais thème bi dinaa koy def man xeexu njaago laay xeex njaago du tooñ waaye boo ko tooñee doo ci génn Macky Abdoulaye Matar Diop li mu wax tegu ko fenn tegu ko fenn troisième mandat mënu fi am Macky nag il n'a qu'à Macky moom wara war débrouiller wu ñetti at moko fi déssé ñetti at mënu fi égalé euh euh tudd jam ñaajo pétrole bi mu yaakaaroon day day ball euh 2022 vingt mën na am du ball ndax corona bi mo wàcc lël yëpp mais Macky Sall n'a qu'à se débrouiller parce que gouverner c'est prévoir gis nga boy jité da nga war a lu bari mais do tok di wax ne aduna bi yalla aduna bi yëpp ay taw léegi changement climatique lolu ce sont des prétextes yo xamné du jall ñun Macky Sall lu ñu koy xeex xeex bu fekkee ne askan bi dañ ne dafay toog ñun loolu lañ ci mën mënuñ ci dara 2024 bu jotee ah Macky ne day def référendum wala dafay dafay pousse élection euh, maire du ma ngi nii di ko pousse ñëpp d'accord ci kenn waxul dara mais ñun lu ñu mën a def mooy ñu ñu ñu wax suñu xalaat mais ay démocrate lañ bu fekkee ne nag Sénégal yi da ngeen di toog rek ñu leen di jox ay ay ay 5000 francs ak ay 2500 ak yu ma xamul ngeen di votel Macky Sall man de bu dul woon man Macky Sall du gagné HLM Macky Sall musul gagné HLM man dama yëkkati sama xaalis bu bëri dugg ci koñ bi def ay caravane waaw mais gis naa ne population bi ñoom ñooy votel ñoom ñooy votel Macky Sall ñun nag ñu ngi fii Amérique mais mais Sénégal Sénégal boo leen waxul Macky Sall mu liggéey billaahi di ngeen sonn adduna bi lu ñu gën a dem day gën a metti ñun de ñu ngi Amérique mën nañu fexe ba suñu njaboot ñëw Amérique wala bu ñëwul Amérique ñu leen ñu leen di yónnee lu doy waaye ñun dañoo comme ñun Sénégal moo ñu jàppale ñu egsi ba ñëw fii moo tax ñu bugg ko delloo njukkal bi mais en tout cas man ànd ànd naag naqar ah gis ne sax Moustapha Diakhaté mu ne Macky Sall doit être poursuivi nee na Macky Sall dañ ko war a jàpp dañ ko war a porter plainte ndax li mu waroon def defu ko ndax gis nga mënd bi waaw gars yi maa ngi jéggalu nag mais vidéo bi gudd na mais il fallait que ma def ko parce que ma yeewoo tey moom moo metti quoi jërëjëf merci ba suba

is one. That mission is done. Paramare number one. is number one. That battle is one. That mission is done.